asalaamaaleykum mbokki commune la sosé de nuyu kenn ku ne santam bu ñëwé ba fi le chef de village de keur sosé ñukoy nuyu bu baax di nuyu aussi le maire sama doomu bàjjen père koy wax ndax mom sama cousin la muy Malick au conseil des collectivités territoriales Malik ñu lay nuyu di la féliciter si li nga xam mom nga def tay di féliciter toute la jeunesse de Kër Socé di les remercier aussi si li nga xam jouer joué ngeen le match ak fair play parce que sport tam non kese la. kon ñu ngi féliciter l'équipe gagnante di encourager aussi l'équipe perdante. di wax ne Malik affaire yi ni kese la. mënuma sori aussi te nuyuwuma le directeur de la Sénélec ñu ngi koy nuyu. Nous aussi monsieur le ministre nous sommes lay le mandataire du département de Kaulak Nous sommes les responsables de la les maires suñu collègues maires yi nga nous, nous les adjoints aux maires, nous l'inspecteur du sport nous ngi fi Nous ñu Nous koy nuyu muy sëy di vous maire yi nga que dans le département parce que nous sommes suñu bras techniques, mais nous sommes les maires qui yu qui yi

li mu def nak dans le monde rural def ko si li nga xam mom moom lay les diminuer def ko si les pistes rurales def ko si l'agriculture, def ko si électrification rurale parce que nak le président mom ak Sall mo ñëw def accès universel à l'eau def accès universel à l'électrification def accès universel si nga xam mom moy lo loo mom la askan bi di soxla muy nga xam secteur vitaux yi kon le président Macky Sall lool bu ko défé war nañu taxaw fu ñu taxaw gërëm ko mu tegal ñu nak candidat fi ñu jëm nak muy les élections Inshallah, au 24 au 25 février Inshallah. ñu bëggu nak ndam wayé nak comme limay wax rek ñun gëmuñu kenn président Macky Sall rek lañu gëm yalla def na amuñu responsable amuñu tutelle ñun ki ñu am moy président Macky Sall parce que bañ koy top nak dañ ko topone pour gëm bañ ko top nak dañ ko topone ak ay conviction dañ ko toppoon ak principe té principe yoy ak conviction bobu mo fi nekk ba légui kon di oo la jeunesse ne bu len kenn divertir amul lenn lu gën président Macky Sall li mu def Sénégal dans le monde rural moom moo ñu dañ la lay wax suñu dignité humaine parce que dañoo nekkoon ay communauté rurale lii xam nga demul toon am bu Mali Ndiéguène ñëwee def lii tey les PCR mënuñ ko woon parce que le président Macky Sall moo ñëw indi communalisation intégrale ba tax tey ñu mun lii yëpp kon ñu lay wax Malick tu mon frère ñu ngi lay féliciter di féliciter toute la jeunesse di kontaan lool si li nga xam ne moom nga def di wax ne ñu ngi lay ñaanal nii kese la parce que askan bi nag da ngay nekk ak ñoom nga nekkal leen ñu nekkal la boo nekkut ak ñoom di leen di nax bés bu élection jotee ñu won la ne da leen doon nax kon ñu ngi remercier ñëpp di jërëjëf ñëpp di kontaan bu baax merci beaucoup. ku gis mobilisation bu mel nii xam ne maire bi jege na population xam ne maire bi jege na jeunesse am mais surtout jeunesse am nangu nañ si lu maire bi di liggéey kon ñu ngi lay sant di la gërëm. di wax rek monsieur le ministre message bi leer nañ ko. en tout cas lu ma na a garantir mooy man Pape Demba Bitèye pare naa bu ñëpp di jaar si sama kaw ndax ñu am cinquième président muy Amadou Ba man pare naa loolu te monsieur ministre xam naa boo jóge nga génnee sa xam-xam génnee sa xarañte génnee sa yeneen yooyu fii ñu jëm yoon bi dina leer bu soobee yàlla ndaxte xam nga Kaolack xam nga département bi xam nga région bi clé yi yëpp boos boo boos boo làmb di fekk ñeenti ñaari clé yoo xam ne mun nañ ñu gañeloo bu soobe yàlla en tout cas ñu ngi tàllal suñu loxo ñun ñëpp xam ne nu ko honorable député maire waxee léegi muy Aïssatou président Macky Sall moo soxla président Macky Sall bu soxla nag ñëpp pare nañ pour jox li mu bëgg ndaxte lu mu deful Sénégal amul lu mu ñu jiwul amul